saraax la ñuy def ci xew-xewu làmb tey fekk fa dégool ma wax ca Balla Gaye ak Boy Niang 2 combat ba ñu doon laam-laamee di ko sàkku diggante Boy Niang 2 ak Balla Gaye 2 na wax ca la mu xamle mooy Balla Gaye 2 dafa war a jël Boy Niang te bàyyi làqatu beeg leem-leemal gi man dégool ma nekkoon Balla Gaye 2 gisuma ku jël bile combat bile combat bu ko Balla Gaye 2 jëloon njar ndéem lay doon ndax amateurs yi ñoo ko sàkku moom Balla Gaye jaadu na bu ko jëlut jaadu na Boy Niang 2 mi Balla Gaye 2 di bañ dugg na école de li duubalees daan fa ñetti mbër bëre naag Sa Thiès raku Balla Gaye daan ko kon combat Balla Gaye Siteu ak Boy Niang yoon la jaadu na bu nu gisee promoteur bu ko bëgg bu Balla Gaye noppee baax na bu noppiwut baax na en tout ko moom kese nekk ñu fi ngir Balla Gaye 2 kese Boy Niang mbër la ku ko làmb booleel mu bëre ak rax ca dolli ne même tafaatin mi ñuy naan ñépp dañ ko fee bàyyi sax Boy Niang laaj na ko Malick Thiandoum invité na ko fi mu laaj ko ngir bëre moom kon Boy Niang 2 fi ma sàmba bàyyiwu fi ma demba ku ko làmb booleel pare ministre de la santé di Abdoulaye Diouf Sarr daal di koy jébbal seeni don na CNG def promoteur yi def ko association des sages def ko ñoom mbër ya def nanu ko dajale nañ seeni koppar bam toll ci lim bu tàkkuñ jënd ci ay don yu bari jébbal ko ministre de la santé démb nag ci VIP ya teewoon ci ministère de la santé mën nañ cee jàpp ku ci mel ni Gris Bordeaux Yaxya Jóob Yékini Tapha Tine Boy Niang ak Reug Reug yi la mbër ñoo teewoon démb ci kanamu Abdoulaye ko don ya yeneen champion ya fa teewu dégg nañ seen participation ku ci mel ni Balla Gaye 2 leen waroon ci dugal seen loxo ci xeex jàngoro ji laajee dafa xam lii lu mënuloon ñàkk la lii yoon la woon mënuñ ko woon ñàkk def moom Gris Bordeaux président ba la mu xam mooy don ministre bi lañ ko jox waaye askan wee ko moom moom Abdoulaye leen xamal mooy def ngeen seen warugar li ma leen di ñaan mooy ngeen yokk sensibilisation bi moom la ministre des sports Ba xam ne bëri daal ay patriote lan bi les gestes day wane ne làmb am na njariñ ci réew mi Mor Kankang ma fi génnoon di dànkaafu adversaire am